ba moom mooy si écurie bi di euh, Pikine Mbollo Tonnerre mu mujjee mu mujjee bu rek ki nga xamante ne mooy Dame Sène fii si arène nationale combat bu met champion la la waaye moo ngi daje xale boo xamante ne bu bëree mu neex moom jaaxum Saliya. waaw xale yi lu leer nga wax nee naa la Tonnerre lamb ko war a bàyyi xel bu baax a baax Tonnerre dafa def ci lamb. ba rek daam seen lu doy waar dara fi ci arène nationale fi jom wala fi fulla ndeysaan yàlla jox daam seen ndam daaxul nee naa bi di nga gis combat bu doy waar de ndeysaan mais tey noo gise stade bi no stade tey damaa kontaan ndeysaan mobilisation bu doy waar tey tey du mer merul la merul boo xoolee tey ñëpp dañ koo wuy si ndeysaan combat bi nee tey jii di nga def gis lu dina saf sàpp dina neex dina yëngu arbitre ba sifflé na si diggante ki nga xamante ni mooy njaaxum ak tonnerre njaaxum moo leen won moo féetee gauche ki nga xamante ne mooy tonnerre moo leen féetee droite ndeysaan ñoo ngay leetoo ñoom ñaari mbër yi. njaaxo njaaxum sànni na crochet gauche waaye tonnerre moo ngi koy déglu. xeexat la dóor na moom tonnerre. laaw na crochet gauche ndeysaan waaye na def attention ñooy ci côté saako yi Tonnerre Ndiakhoum Tonnerre dóoraan na ñoo ngay xeex ñoo korante ñoo korante ñoom ñaar Ndiakhoum Tonnerre lan moo a xew Tonnerre Ndiakhoum Tonnerre rokos na tey Tonnerre xeex la indi dóorante leen am jaay joxal yóbbu jël na ba lay laa xëy la Tonnerre njaaxum Tonnerre yéegu ko fu sori lay daan na ko Tonnerre daan na njaaxum lay laa xëy la laa daan na ko Tonnerre xeex na xeex bi daan na daan bi ndeysaan nee naa boo ñu waxee waaye ci xeex de la wuyu mais que ne Tonnerre de. boo ko woowee si bëre de la bu ko si moytuwul. nee naa ne ko laa mu bàyyi xel. daanaan la. kenn du moom ci ndeysaan. keroog daal see gëj na dëgg wala am ko si fulaak fayda personnalité ak maana moom Tonnerre